mbokku internet yi euh, ñu ngi waat fii ci Wakaam ci kër euh, sang bi Mouhamed Nabi Guèye euh, mu am journée boo xam te ni mooy journée annuelle bi ñu war a def samedi 22 ak ajjuma 22 ak samedi 23 ci mois de décembre bi mu nekk journée de prière boo xam te nii ay kilifa yu am dayoo ci wàllu diine bi dinañ fi daje ak tam mbooloo mu jullit incha allah parce que dafay nekk événement boo xam chaque année day am. te ñëpp ñu sol lu weex ñëw toroxlu ci toroxlu ci sunu kanam sunu ci kanam sunu borom ñaan yàlla mu jéggal ñaan yàlla mu nanguñu lépp loo xam ne ñaan lañ ko tey jii ñu ngi fii ci kanamu sang bi euh, sang bi kàddu gaa ngi noonu ban appel ngay lancé ci mbokku jullit ñi. alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam Euh, mbokk yi jullit yëpp euh, ñu leen di ziar di leen baalu ax di leen euh, wàccee seen wàccukaay yéen ñëpp jiital si kilifa diine yi macha allah ak kilifa aada yi macha allah ak mboolem jullit boo xam ne tey fi tey yaa ngi tudd sa borom subhanahu wa taala si baatu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mbokk yi suñu jotaay tey jotaay yu jàmm la ndaxte dañu dellu sewaat ci suñu journée de prière et de recueillement à la mosquée de la divinité ni ñu ko bàyyi woon di def chaque année te lu jiitu loolu Mawlana Mohamed Seyni tàmbali woon ko bi mu fi jógee nag macha allah ñu uute ko ñu uutu place am continuer ñaan yooyu ñuy def si mois de décembre bi mu nekk ñaan yu am solo parce que jullit amul lu dul ñaan wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu nekk leen benn te dem te leen si xaajoo euh, loolu tamit nekk na euh, loo xam ne jullit ñëpp a ko bokk te itam bés bi bésu ñaan la le vendredi 22 le vendredi 22 décembre dinañ fa julli juma comme niñ ko doon def à partir de 14 heures su ñuy jullee juma ba pare dinañ fa def salaatu tasbiya so ngoon nga su takku takkusaan bi passé tuuti dinañ def xadrat juma mooy programme mu juma bi juma asaatu tasbiya bi ñu nekk mu nekk julli gu am solo boo xam ne ndeysaan jamono sax ñu bari doon nañ ko organiser si réew mi muy saatu tasbiya euh, di tase si benn place di fa torolu di fa ñaan yàlla di fa sàbbaal di fa sujoot saatu tasbiya bàkkaar moo ko tax a jóg yu nëbbu ak yu feeñ yu jiitu yi ak yu mujj yi ku ko yàlla nangul eh, mu nekk bés boo xam ne tamit fa ñu tàmm di ko def muy mosquée de la divinité place su ñaan la yaakaar naa ne kenn du ko weerenteeti ne tey place su ñaan la ndaxte jumaa jiñ koy defee nekk na juma boo xam ne tey juma ju siiw la dans le monde ñu ngi koy wane partout dans le monde te Sénégal la que la yàlla dogal jumaa ji feeñe fi wàcc fi damay wax toujours ne na gëstu juma jooju ndax li ñuy wax dëgg la am déet dafa laaj gëstu ndax tey jamono dafa dafa dafa dafa dafa tëradi loo wax ñu weddi la loo yëkkati tamit ñu ne du noonu ñu ne déedéet weddi ko wante damay wax ne bu leen weddi feex seetu leen ko na ko seet seen digganteex seeni borom sur le plan spirituel lay wax ndax baatin ala kulli alin alxuraan daf ñu joxoñ baatin bax dama auzu billahi mina sheytaani rajim ci sootul baxra alif lam mim zalikal kitab laa rayba fihi hudan lil muttahin allazina yuminuna bi xëy bi lil muttahin allazina yuminuna bi xëy bi yàlla ngi wax mutahin ñi ragal yàlla lazina yumina bi xëy bi mooy ñi xam ne gëm nañ baatin wa yuqimuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiqun ila axiri aaya ba aaya bi jeex kon alxuraan si boppam ba muy wàcc si yont yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam si baatin la wàcc kenn xëyu xel gis alxuraan jóge asamaaw di wàcc si yonent bi alayhi salaatu wasalaam si ruu yàlla ba muy jibi yónni jibi alayhi salaam ñuy roñ alxuraan di ko andi premier asamaaw ñu koy wàccee si yonent bi alayhi salaatu si baatin la si baatin la kon baatin boobu la ñu yàlla gëmloo yéen ñi ragal yàlla kon jamono dafa am orientation boo xam ne yàlla mu ñuy orienté foofa ndax alxuraan lépp baatin la bi muy wàcc ba mu mat muy alxuraan bi ñuy jariñoo ñun te mu nekk suñu constitution muy alxuraanu karim baatin Mawlana xam Seyni bi may wax nii si baatin la jotee plan maquette jumaa ji si baatin la ko jot yàlla bi ñuy gëmloo baatin tamit moo wàccee jumaa ji te muy dëgg si Mawlana Mohamed Sini ñu indi maquette bi premier asamaaw benn baat na ko topp ko dañ koy wàccee topp ko seet fan lay wàcce mooy jumaa yi ngeen di gis mosquée de la divinité sang bi topp ko baatin bi maquette bi jóge asamaan di wàcc sang bi di daw di ko topp di ko topp ba fi mu wàcc si tefesu Wakaam kon mbokk yi yaakaar naa ne sang bi bi mu juddoo ba léegi ba ni mu demee ba ni mu ootee ba ni ko yàlla defee muy ay fir ardi tàllal na loxam fii wakam gii ne sama loxo masul laal lu araam lu naxari yàlla sama tànk bii yëkkati na tànkam bi teg ñëpp di ko dégg góor ak jigéen mu ne sama tànk masul jéego jëm si lu naxari yàlla ku ma si xamal dara dara dara mis xaala zaratin min al kibri min al zuluma may naa la public nga ne ma mas nga ma tooñ ci sama jabar mbaa mas nga ma tooñ si sama alal mbaa mas nga ma tooñ ci sama doom kon mbokk yi masul laal leneen lu uute ak yàlla lu uute ak lislaam lu uute tamit ak taxwa lu uute ak njub lu uute ak sellal moo tax yàlla jox ko ñett ñetti baat yooyu ne ko ooteel mbokki jullit ñi bés boobu nag lañu am yéene defe fa ñaan yi ndax adduna dafa yaatu palaas yi yaatu wante ba adduna sasoo ba léegi ba waxtu may wax ak yéen si média yii tey ba àdduna sosoo ba léegi kenn kenn kenn masula nettali ne fekke naa bii alxuraan di wàcc si yonent bi ba alxuraan sosoo ba léegi tamit lépp lu baatinu jóge suñu boroom boroom lay concerné moom mi xam ne moo jot xibaar bi wante keneen fekkeew ko ndaxte mbiru yàlla dafa bàttinu lépp a bàttinu ba yàlla di sos àdduna suñu maam aadama suñu maam Awa nettali lañ si am axuraan nettali ko kenn fekkee ko kon mbokk yi bés bu yaatu la duñ leen oo si leneen loo xam ne lu uute ak lu ak baax. bés yi waaw léegi bésu ajuma bi laa ñëwoon bésu samedi bi tamit le 23 dañ si am gan gu mag nekk kilifa ci réew mi di xalif général sëñ Assane Seck bu Canaba moo ñu ganase le 23. incha allahu rabbi sa place boobu tamit lay ame naka ñëpp a teeru suñu gan jàppale ñu ñu teeru ko parce que kilifa diine la te kilifa bu mag la xalif général la kon mbokk yi ñaari bés yooyu moo nekk suñu kanam ñu bàyyi si xel bu baax a baax lii moo waral suñu déclaration tey ñu oo suñuy xarit ak suñuy natango jox leen xibaar bi parce que liggéey bi dafa yaatu Sénégal nag yaakaar naa ne war nañu santaat suñu borom subhanahu wa taala si ay ngëneel yi mu fi def xaj na jumaa ji su wàcci woon beneen dëkk dañuy dem fekki ji su keroogee dañuy dem fekki ji wante fii la yàlla dogal mu wàcc fi su wonte dëgg kon sang bi du jot xibaar bi yaakaar naa ne mu ngi wàcc jumaa jaa ngi wàcc en 73 la jumaa ji wàcce dix-neuf ans après yàkkamtiwul xar na ndigalu boroom pour démarrer pour tàmbali ko si jamono mu bi mu loolu amee biñ ko waree tàmbali mu oo sama papa Xaaji Ibrahima Sakho moo tegoon pose première pierre bi Bassirou Diagne nga foon grand sëriñ à l'époque ñoo ñu fekke woon nañ ko ñoom ñëpp am na fu ñu jaar ak Mawlana Mohamed Sini si lii mu oote ñu seet ko ba muy dëgg ñu soog a ñëw na ko géy wallaahi li nga oote dëgg la te ñooñu yaakaar naa ne tey du ñu làmbatu loolu te mbiru sang bi dañ ko war a seet seet leen ko dem leen seeni matuwaay dugg leen xalwatu moo gën làmbaatu bi moo gën jumaa ji ngeen koy romb guddee bëccëg ngeen gis nit ñi di fi dem di daw di fa dem di fa duggi ji mu jaaxal ñépp tey yaakaar naa ne su wonte dëgg kon yàlla du omat xol yi ñu dem fa dafa am ñaari kuréel yoo xam ne tey ñu ngi ci jamono di si dox di si yëngatu mooy kuréelu yàlla ak kuréeru seytaan ku kuréelu seytaane su ootee seytaane mooy omat xol yi ñu dem yàlla su ootee tamit macha allah yàlla moom xol yi mooy omat xol yi ñu dem te yaakaar naa ne xol yi kenn moomu leen seen borom subhanahu wa taala mi leen bokk bind moom moom suñu ruu te yaakaar naa ne su woon ci dëgg tey jumaa jooju yàlla du ko teg si booru géej gi yàlla am ay instruments de destruction massive te am na brise de mer baa ngi fi taw baa ngi fi suuf saa ngi fi kon su woon dëgg jumaa ji du taxaw di nga ko liggéey cinq ans cinq mois di ko inauguré maam Abdou Aziz moo war ñëw si inauguration doom ji moo mujj ñëw si inauguration ba maam Alpha ak délégation gouvernementale ñoom ñëpp fekke nañ keroog pose première pierre bi xam ne moom lañ doon def keroog bi jumaa ji pare inauguration bi cinq ans cinq mois jumaa ji pare na masuñu ko laajal yaakaar naa ne masuñu def ay enveloppe à travers le monde di wër di ket pour jumaa ji sang bi gëmoo na ne yàlla mi nga xam ne tey fi tey moo ko sant jumaa ji moo koy moo koy taxawu moo koy àggali moom moom jumaa ñam dina ko ot travaux yi de jour et de nuit lañ doon def en saison des en saison sèche et en saison des pluies noonu la jumaa ji taxawee taw bi yàqu si dara li li ndox mi bari yàlla de devient ndox mi ñu dem géej kon mbokk yi afala taxiluuna alxuraan andi na ko ndax yéen doo leen xelu alxuraan andi ko kon lu ñu leen wax du suñu bopp déedéet sang bi liggéey na jumaa ji dem si ndigalu borom subhanahu wa taala fa lañ mu ngi foofu yaakaar naa ne tey fi tey masul tàllal loxo kenn na ko dimbali ma doyloo woon na borom subhanahu wa taala ba tey ju ñuy wax ak yéen macha allah kon mbokk yi bis bii bés bu màgg la bésu ñaan la dem leen fa nañu ànd dem fa ñaani ji nañu ànd toroxlu ji nañu ànd ak suñu njaboot di fa dem di ñaan sang bi li mu mujj a wax moo di na ngeen fexe seen ab dund donte ko benn yoon la ngeen ñëw julli fa juma delluwaat seeni jàkk ak seeni jumaa waxul na ngeen tëj seen i jumaa ñëw fi déedéet waxul ne ngeen yëkkati seen i idaaye di ma jox déedéet masu ko wax man mi taaw masuma ko laaj masuma laaj benn dërëm man maay nekkoon à la banque di liggéey masuma laaj benn dërëm masuma laaj benn dërëm tamit pour def ko si këram sama électricité euh, dañ may précoupé mbaa sama ndox dañ may préoccupé jox ma xaalis ma fay ji mbaa nga jox ma xaalis ma dépensé si kër gi mbaa ma jënd ci maa doon xam maa xamoon sama wargo di ko def noonu la ñu nekkoon na sang bi ba ni mu demee ku du laaj sa doom doo laaj kenn masul tàllal état naka dimbali ma si dara moom noonu la dunde noonu la dunde ba dem macha allah kon nag bis boobu macha allah mu ngi suñu kanam le 22 la le 23 ñu ñëwaat ci tamit suñu xalif général Serigne Assane Seck bu Canaba fi lay yendu ñoo xam mooy nekk ba jamono bii muy demee moo ñuy jiite ñaan yëpp julli yeex ñaan yi moo koy jiite sa mosquée de la divinité. sa mosquée de la divinité waaw tey su ngeen waxee na am na jumaa ju yàlla wàccee liggéeyee ko boppam ndax doo leen xelu su leen ko nit waxee te ngeen xam ne koy kii ko wax nit yàlla bu mag la si jamono yaakaar naa ne ko am xel dig ne waaw mais jumaa ju yàlla wàccee naa fa dem bokk dugg fa ñaan yaakaar naa ne ku am xel noonu ngay doxale wante duma ma fa dem du fa romb du lay lay bii sang bi wax ngeen am lay ëllëg soo leen demee si yàlla mooy ngeen fexe ba julli fa yàlla dina leen laaj ndax sama jumaa ji ma wàcce woon ci sama xalifa ndax mas ngeen fa dem mbaa mas ngeen fa julli xam nga tey nit ñaa ngi dem Kaaba ga Kaaba orientation la Kaaba ga orientation la mooy suñu xibla mosquée de la divinité nekkul xibla encore une fois nekkul xibla ñi fay julli ñëpp Kaaba ga la ñuy féete beneen bi tamit sang bi siib dundaam jotul ndigal ñu tawaaf ko loolu moo tax kenn ko tawaaf si ndigal wante dafa bàyyee nit ñi seen coobare bopp su leen neexee ñu wër te dara du si fekk parce que jàpp nañ ne jumaa ji asamaaw la jóge benn juma moo nekk si kaw asamaaw téere yëpp andi nañ ko baytul mahmuur te yaakaar naa ne juma jooju tey mooy jumaay malaayka yi nit ñi mënuñu fa àgg ba du dugg ci baytul mahmuur jumaay malaayka yi la mu nga sa kaw asamaaw téere yëpp andi nañ ko ba ci alxuraan andi ko ba ci téere fiq yi andi na ko jumaay malaaka yi malaaka bu si nekk benn yoon nga koy tawaaf ci sëb dund ndax photocopie Baytul Mahmour la yàlla wàccee fii am déet sang bi se poser la question ndax Baytul Mahmour la yàlla andi mu doon suñu xéewal am déet wante maket bi wàcci tey jóge jóge si yàlla muy juma njort nañ ne yàlla moo ko wàccee te mu te dëgg malayka yi yàlla dogal na tamit ñoom ñi nekk si diggante bi wax ma ñi nekk si kaw ñi nekk si suuf si waa axlul ardi bay na xuma ñi nekk si diggante bi ak kiramin kaata bii na yi ñi nga xam ne tey fi tey ñu ànd ak ñun ñu nekk ay ndaw nekk ay malayka ñooñu tamit ndax yàlla daf leen baaxee tamit si xéewal bi si jumaa ji mu wàccee fii ñu dem fo di fa barkeelu am déet yàlla rek a xam allahu yaxlamu ci ci wàllu yeneen boobu fan yi ci ginnaaw amoon na euh, ay kàdd yoo xam te ni yu tegginuwul loolu la du benn euh, mbokk benn bokk mm-hmm. tuddul tuddoon ba tudd ci tudd ci euh, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mm-hmm. ak tarixa bi ba ba am ay mbokk taalibe Tidiane yu bari meroon portat ko plainte ba yëf ñi demoon tribunal euh, tension sociale boobu euh, lan moo ko fi jar est-ce que mun mënuñu woon dundee neneen dund l'essentiel ñëpp nekk ay jullit waaw euh, mais parce que xam nga xam nga ni soo ko fekkee si li mu gëm ak li mu topp xam ne tey ñoom indi andiwuñu ko fi lañ ko fekk suñuy maam maam di ko def yaakaar na lay jàmm mooy nga bàyyi leen si lañu nekk la ñu gëm tamit nga bàyyi leen si man foofu lay waxee tey fi tey weddi nit si li mu nekk day nuru tooñ te yàlla moo jëkk aramal si boppam tooñ wax na ko inni xaramtu mina nafsi si zulma aramal naa sama bopp tooñ te loolu yëpp tey dafa am lu lu muy def nit ki loo xam ne tey fi tey su si nekkee di si yëngatu am na fu mu koy yóbbu am na benn benn niveau parce que tey soo demul xadara yaa ngi si leneen xale yi soo gisee tey ñu ñu ñu ñu bari di dem xadara parce que tey ma jox la benn exemple su fekkoon ne tey xadara dafa am xadara dafa am xadaratu jumaa xam ne suñu jullee takkusaan ba pare si lañ koy tàmbali am benn match de football boo xam ne tey mu nga stade ba nga gis ne xale yi ñoom ñëpp dem nañ stade ba ñu néew ñooy dem si xadra bi gis nga tey pees yi bii yàlla di peese ruu yi di xam seen niveau seet fu ñu jëm fu orientation fan la jëm te dafa am solo orientation xale yi dafa am solo xetta leen si diine dafa am solo euh, la hadisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mooy mooy li am rek man yuridillaahu bihi yu yufaqihuhu fi diini ku yàlla namm si yow ak yiw daf lay xetal si diine al diine diine lislaam moo tax ñuy wax te loolu dafa am solo gis nga xetal bi ñu lay yiw kese la yiw kese la tey tarixa yi ñoom ñëpp seeni seeni wasila dafa amoon foo xam ne bëggoon nañ fa yóbbu askan wi moo tax ñoom ñëpp tey seeni seeni wasila créé ay tarixa boo xam ne tey euh, euh, lu baax la fi def lu baax la fi def waate dinaa ñëwaat si Maolana Mouhamed Seyni donte ko tijaan la donte ko am na tarixa charia euh, la oote parce que yàlla charia la ko oote na ko ooteel si charia si taxawaa ak njub ak aslaha ndaxte charia bii ma bii bii bi ko yàlla ottiloo moo tax soo demee dans soo demee si biir mouvement nabi àllah tarixa yëpp a ngi si biir murid yaa ngi si biir ay cheikhu murid laa lay wax tijaan yaa ngi si biir layen yaa ngi si biir xaadir yaa ngi si biir te ñi may wax ni ay ay ay ay ay eh, ay muxaddamu xaadir ñu ngi si biir ay muxaddamu tijaan ay muxaddamu murit ñu ngi si biir loolu tax sang bi man leen dajale si innamal mu'minuna ixwa kay leen ñu ànd si yoonu yàlla yi mën a pour ñun ñëpp seen tere suñu xewlee dem leen seeni gàmmu suñu xewlee dem leen fu leen neex jël leen seen alal ngeen jox seeni iti seeni seeni sëriñ man ngeen sopp ma ngir yàlla parce que yàlla daf ma ooteloo si charia lii la sang bi oote ootewu leneen. kon daal julli ñëpp benn a iwa. nañu rafetal suñu borom. macha allah recommandation yi. lii la sang bi oote. sëñ bi bëggoon nag. Euh, Malick ci li ñuy tëjee. Euh, ñu ngi jëm ci wàllu élection yoo xam te ni dina ñëw fii euh, ñaar ñetti weer ñeenti weer ban ñaan ngay ñaan population bi ak politicien bi pour que ñu garder jàmm ji nga xam te ni moom la réew mi soxla. waaw ñaan gi euh, suñu demee ba ba place ba incha allah dinañ ko ñaan loolu yàlla def jàmm si réew mi. ndax élection yu ñu jëm yàlla def ci tawfiix def ci jàmm ba ñu mën ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulillahi rabbi alamin suñu warga mooy ñaan ah wax dëgg yàlla ñun loolu lañ am amuñu leneen sa jamono yu metti yëpp dañ daan dem mosquée de la di fa ñaan lu coow coow coow bari bari bari si réew mi dañu oote sa mosquée ba nañu nañu ñaan jàmm si réew mi bañ ko dalee def ba léegi nag yàlla defal nañu nimal lu mu metti metti metti tension bi day apaisé te loolu yaakaar naa ne mooy li xam ne moo ñu war muy man muy keneen Euh, na si ñëpp ñaan si bés yooyu Malick lii moo euh, mooy li xam ne macha allah moo si ëpp solo.